السلام عليكم عليكم السلام عمالين بيتي contentement Abdoulaye Wade ñëw na ñëw na dëkk bi nga xam ne fa la soxnaam cosaanoo wax nañ ne Karim ne bu la ci ndey parce que ay maamam maaxee nañu Abdoulaye Wade mu ngi préparé le 21 novembre muy rassemblement yu mu soxle un million de personnes ñëw nañ ci dëkkam ma présenté leen kii nga xam ne tëggkat bu mag la ñu naan ko Alain Jossi kii ñu naan ko Robert Robert wane sa bopp merci Alain wane sa bopp góor gaa ngi nii toog ñu fas yéene ko sampal ki nga xam ne mooy ndëppkat bi ñu naan ko Robert mooy egsi Robert Robert Robert Robert Robert ngi egsi Robert Robert Robert Robert Robert ngi egsi Né Robert Oui, Né Robert, Robert, Robert Robert, excellent, merci Gis Robert Anna Sophie Sophie s'il vous plaît Les Guinettes. Ablaye Wade ngi le 21 feuille de rassemblement bu Sénégal ni avons amee ay qui côté Nous la amee ay qui ci côté ki ngeen gis mooy Robert dina yëkkati ay cadeau pour aar Ablaye Wade Sophie gaawal ñu dem parce que waxtu baa ngi dab na lépp ñëw yéen da ngeen di saraxay dugub ñun li ñuy saraxa di ngeen ko gis tegal lépp mu mot bagage yu Ablaye yi na féete na lii Robert yow rek na déglu yow na xaar Promotion et protection pour Abdoulaye succès avec meeting éclatant Plus de 1 million de personnes pour accueillir Abdoulaye Wade que Dieu le fait. Dans les vallées et les savanes de Monaco, Marseille, de Mélouse et de la jolie le mystique français, l'Afrique a son mystique, l'Europe a son mystique, Paris, pays de Marianne. Oh Marianne des Champs-Élysées, oh Marianne des Champs de Château-Rouge, la gare de Lyon, de Marseille à Montpellier, de Montpellier à Bastia, Bastia à Monaco, la reine de Monaco, les sublimes des vallées qui chantent les louanges de la guerre, de la... des sons de pays, de le pillage pour un succès énorme. Robessa. Wadu wadu wadu tos ma mbax ma tos gi gën a gën xam. Donnez-moi les salades, s'il vous plaît. On va te faire ce que nos ancêtres faisons. ci xam ba salade yi ngeen gis nak. yéen da ngeen koy jël di mariner ni mu baaxee ci mag moom la ñuy woti. parce que buñ ne salade Sénégal momu ko France ko moom. waaw ñun tax ngeen xam salade. effectivement salade boo koy saraxee. toujours yàlla dalay men wér ak dëgër ak këng kon Ablaye Robert Sali chanté Rasta उपयोगी Gisman, Gisman, Gisman. Canibu vaca. Canibu John, canibu Rus. Antônio Bretisus. ngeen kaani bii ni mu verte gis ngeen kaani bii ni mu jaune gis ngeen kaani bii ni mu bu fekkee ne Ablaye dañ ko nar a indil fitna na kaani bii tàng jox ci Macky Sall na saf sàpp bu dara sedd ni cartonté Sénégal mel verte jaune rouge na kaani gi tàngal verte jaune rouge bu fenn sedd kaani gi nag dañ koy tot Robert sa wayal ci kaw ñu tot kaani gi i Star Robert Star moom nga bëgg yéen Sénégal da ngeen koy wax naan kan moo jàmb sa tomate yi Ablaye mooy jàmb seen tomate yi ba mu faax ku jàmb sa tomate yi Ablaye mooy jàmb sa tomate yi lépp loo xam ne Sénégal da koy lekk mu ànd ak tomate yi dale ko ci ceebu jën ci ragu ci li nga xam ne moom mooy cuubuleet bu ànd ak tomate fraîche teel ma ni lii daan la tomate dañu koy pressé dañu koy pressé ci Ablaye dañu koy pàccaxo ba sans allez-y poccal tomate poccal tomate poccal tomate poccal tomate poccal tomate poccal tomate bi ngeen gis nag poccal tomate ñu ngi ko bayee ci tool bi nga xam ne mooy diggante Marseille ak Mulhouse tomate bi kuñ ko tojal kuñ ko jàmbal kuñ ko musa jàmbal ci jusqu'à destin ba ci Sarkozy ci Mitterrand chaque Chirac fu jaax nañu fii fii ku fi toog falu ndax tomate buñ ko jàmbee mu faax kon kii du tomate waalo tomate Paris de Marseille la dañ koy dagg ñëpp gis ko ngeen koy gis en direct muy tomate Ablaye ku jàmb tomate Robesta ku jàmb tomate ku jàmb ku jàmb tomate ku jàmb ku jàmb tomate jambu tamaate yaa ku jambu tamaate jambu jambu jambu eh, ministre de l'intérieur dirait de autorisation mu naqale xobes taa ci kaw ci kaw ñu xobes bu dara set na lépp yëngu bu dara set eh, bu dara set na lépp yëngu bu dara set na lépp yëngu bu dara set na lépp yëngu bu dara set bu dara set na lépp yëngu bu dara set na lépp yëngu eh, dama ne yéen da ngeen di saaxee ay nakka ñun duñu saaxee nakka Sarah qui est prime À allez-y mangez Alain Robert merci Robesta Robert Robesta गोरगी गोरगी गोरगी अचानक से हमेशा romb daanul daanul daanul eh Robesta allez-y chantez les louanges Robesta Johnny Hallyday Sarkozy Robesta Jacques Chirac Michel Platini Robesta

Ousmane bin bin Macky Sall tu vas donner Macky Sall tu vas donner. Sall tu vas donner Macky Sall tu vas donner. on va marcher on va marcher Macky Sall on va marcher. on va marcher on va marcher Macky Sall on va marcher. Vallée de Monaco Monaco de Paris. Paris les succès de Johnny Hallyday. non non non Sarkozy. Sarkozy. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Mitterrand. Mitterrand. fi ma jaaroon ak yéen. ma jaar ak moom. ba ngeen falu. Messi. Messi. Messi joueur. Messi joueur. monsieur Platini. Platini. Jean-Pierre Papin. Papin. man maa yor Galadiam. yaa yor leen. may Barbo. kon Robesta ni Robesta. Buri buri. Robesta.